xasan xeetam sonn nekk jaam madinatul munawwara la doone jaam sëriñ xasan nee na ma sonn nekk jaam madinatul munawwara la doone jaam yonent bee ko jënd moom ci alalam defoon ko jiitu xare bi de moo ma yem waaye nag yow soo fas gën a dund waaye ma aw fasantay dee mu ah mu ne ko waaw war defal li ma la wax rek sekarang ngi wax nu mu demee waa ji daal di bi wax ko ñu daa bokk toog ba tax tax fusi ñu bokk lekk ci ëllëg si suñu alsan génn jël jël wasir bi ni ko ante mu ne ko man ka dama la yóbbu te ñëw ndax diw fosal ba dafa dee waaye suñu ñaari ñoo ah, sama fos de mu ndax sama fas mi ngi ni jël ci te dara jotu ko mu ne ko bàyyam dafa daan sonal fas yi ñu déglu si ak ruuxam wutal ko jëmmi fas jox ko doomam mu di ko takk di doon parce que dégg loolu sëñ bi loolu loolu loolu ngeen teg loolu ma ne loolu ngeen ko tudde bu wi wilaaya lan la ah hmm. ah sëñ bi xam xam gi yàlla xamal doomu aadama di seet di ko neex bu def ko ci moom bokkal ci nangul yàlla jëfam ji te bu ko ko wedde moo gën sëñ Assane dimbale na fi ba tey ca dimbale rek la doon def nag ku gaañu ci moom yaa gaañ sa bopp waaye teq la nga fi nit ci xat-xat yoo xam ni dala naan defal nii waxal nii rek sa aju faju man sama man yooyu maqaam taxaw dañoo toog ma ni ko yàgg ma ne ko sëñ Mor mu ne ko laaj mu ne ko gaawal jël sa këyit ak sa bindukaay ndax malaaka yi am na lu ñu may sax sëñ Mor jël xalimaam asan ren tekk di wax sëñ Mor di bind ba àgg mu ne ko mu ne ko asan lii nag mu ne ko malaaka yi nee nañu ma ku ko mokkal doo paralysé ci àddina waaw loolu nag booba de man xaw paralysé siiwul ma ne boobu paralysé siiwul ko mokkal doo paralysé ci àddina sama mag la ko sëñ sëñ Asan wax mu bind ko kon nit ku baax mm-hmm. dafay nangu dogalu bi yàlla bokk na ci jàmm nit ku baax loo tul neel dama koo mënul waaye ñàkkul ku ko man dama ko xamul waaye am na ku ko xam gisuma ko waaye gis am na ku ko gis loolu mooy tegtal doomu aadama bu nite sëñ Asa nag man boole naa ko ci ñi sëñ bi lim أولئك la لا يستعجلهم is يكشفون المريدين سعاداتي moom boole naa ko ci liste ba man ci sama bëgg bopp ak sama xalaat ndax foo mos a toog rek dana fa génne nit ci guta dimbali la ba nga ni cocc ndax man li ma defal lu ko gën di mën li ma defal ko gën di mën yaa ngi jëm fi barab te ñoom dañu laa waajal ngir faagaagal sa dund yow kii dikk xamoo ko mu mën a dem te doo xam moom mu wax la lu tax nga mën caa mucc feeñu la ba jox la njëriñ loolu dundi ma la ah kon yàlla na yàlla boole dimbali ku fi teew ku ne yàlla na yàlla dimbali ci barke bi yonante bi alayhi salaam waaye dara jël sëñ Bamba ak Cheikh Ibrahima Fall barke sëriñ Alsan Salaam bii bisab bii day yàlla na ko yàlla ful ba nu def ko àjjana bokk fa daje ñun ñëpp nag mu toog mu xam ne ñi jaral na ko amiin nag na ñëpp ne amiin ku ne amiin yàlla nga amiin sëñ Assane lu waay ci moom mën naa am mhm. ndax nituk yàlla la ko dara ko dugg dara ko ñu ko dara dara ko ñu dëgg la hmm. wallahi hmm. wa billahi wa tallahi ci ci nit yàlla yi yàlla tànnal bopp ma la bokk nañu ko nangu te yàlla tax ba dégg loolu hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah ilaha illallah sëriñ baara bay baara bi ñu lool ku sa li nga wax ngay jàmbaar joo xam ni yàgg nga bégal murid yi waaye yàgg waxtaane jàmbaar jooju nga xam ni amoon ku dul moom muy Cheikh Ibrahima Fall yal na yàlla dolli sa wér yal na yàlla dolli sa kàttan ci dara jëy Seydina Alhasan salaam bii nga xam ni tey moom la ñu defal bis bi ñu ngi nuyu bu baax Serigne Mahmadan Mbacké yegg si na ñu toog ñu ziyaar jox ko wàccuwaayam ñoo ngi nuyu bu baax Cheikh Abdoulaye Diop Bisri mi ñëpp xam ci waxtaane xaadimu rasul moom it yegg si na léegi moom it mi ngi toog di koy nuyu bu baax te di ko jox wàccuwaayam tey ñaan yàlla dëgëral ko te kàttanal ko ñu nuyu bu baax Amadou. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يسر للميسر العسير محشره لي بلا مسير ولا العين لسواه مدبرا بلا مكارث ولا أمراض رد لغير جهته سيدانا وطيب الممر والأودان فلا لغير جهته العين يسوقه دبيقان قال والإله ليالي ما لهم بهام بدأني اليوم برب الغيب أعاني بمن حلوا وحيبوا لا يتواجه لنا المنعمون عني محت مكاره وتعبوا الحليم حتما سكنني ميسر المسير مكانه لي بلا مسير مناكح الليلة قد أحدا آدم موسى يوسف محمدا ثم علي وسليمان على حرام نورا وذريقا بورا الذين منتفى الحمد لله على اللهاء مذبئين سبل الانتهاء لله للأرضين والسماء كل ولي قد جاد بالنماء باركني في الحركات والسكون رب الذي قتالني كن فيكون ربحت في البيع وفي المجادلة وعند حب الله كل